jannatul firdawsi doon quartier bu sori lool ci biir Touba dalaloon responsable politique bi Alla Sylla ci tournée politique am bi étape bi jannatul si ñoo aaye woon ñu am ci mbégte lool ci ay jëfam te mu wër Touba ñuy xamle ne fas yéene na jàppale Baye àll ci li mu bëgg ci ñaareelu mandat président Macky Sall te Baye Alla Sylla liggéey ci liggéey bu am solo waaye nag ñu teg ci ay doléances yu sakkan lu ci mel ne courant ndox akum kër docteur ñoom ñi xamle ne sori nañu lool ci biir Touba waaye daal seen quartier bi dafa mel ne ne way politique yi moom dañ ko fàtte ñu daggaan ci Baye àll Sylla ngir mu taxawal leen ci taxawaay bu mucc ayib. Sylla boo demee nga ne président ñun waa jànnatu fil taw si ñoo ngi fii toog ku ñu fi nekkal ñu nekkal la fi bu ma yeboon na mbootaay yi lu mat ñeenti mbootaay a ngi fi ñeenti mbootaay mi ngi fi mbootaay yi fi nekk nag ñun fu fu bas fay aw ceer aw fa bàcc jóom mi aw fa ñoo ngi ci ginnaawam ñun li ma leen di wax sama waxi démb mooy sama waxi tey ñun fëkk yóbbuwuñu ay ñaari ñeenti téeméer duggal ci oto bi voté wala ñu ne la 5000 la nga di duggal voté ñun yooyu yóbbuwunu lin lay ñaan daal de limbali li ci sunu koñ mu defaru amuñu courant mu dugg ci biir koñ yi du courant du poste de santé du sécurité du yoon wu baax yoon yu benn yoon la tout droit rek amut leneen fii ba Daar Rahman tali amu fa boo bëggee dem feneen da ngay toog ñun jigéen yu guddi nga war a accoucher lu la génne fii day metti doo ko am ba leneen sax da ciy am te loolu neexul nga doon ndaw loo xam ne yow la fi yow yaa fi ñëw tey ñëw seet si nu muy la première fois nag ñun euh, toogaay bu mel nii mosu fee am jataay bi tey la ma am ci wàllu politique. mu mel ni ni ko mbooloo mi jiitu waxee loolu rek mooy sunuy mébét loolu moom lañ soxla lii ñu mënal sunu bopp nag moom sàkkuñ ko ci kenn muy lu jëm si sunu kër yi waaye nag sécurité bi nga xamante ni manqué na fii ñu nekk ci Touba Jannatul si loolu la ñuy sàkku ci ku ñu ci dimbali. dimbale na it ñun jigéen ñi ci ab liggéey bu baax ndax fi lu fi am xooli gerte fukki kilo gerte ngay xooli tànn ko di nga ci am bis ba bis ba jeex ñeent fukki dërëm lan lay fay wala juróom fukki dërëm xam nga loolu du liggéey. ndax ku ne gis na ne ñun amuñu dara lu ñu yitteel lu may koñ bi moo ñu yitteel. lu jëm ci koñ bi dong moo ñu yitteel. Alla Sylla dellusiwaat ci li waral teewaay bi ci fiir daw firdawsi tey xamle ne dégg na seen ay jàmbat fa yéene na cee taxaw tey xamle ne moom kat du diggee. waaye lu mu mën yaakaar naa seen sama ñëw fii am na lum tombeel di leen sant bu baax nag di leen gërëm di sant it bas mi ma fi indi bokk ci ñi ma fi indi. di leen xamal ni man bokkuma ci politiciens yi nga xam ne dañuy wër di diggee lu ñu mënut daf maa liñ ma tawati dinaa xool li ma ci man sama kéemtalaay kàttan ma tàmbali ndax it dañoo jublu ci lu nga xam ni dañuy liggéeyloo ci dëkk bi te dañoo bëgg a war Tuuba fenn fu ne fas nañ fa yéenee def fa dara.